الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد في كل شيء. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا بلغ رساله القران وادى امانه البيان ونصح الامه ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ixwatal iman mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi li ñu seetlu ci weer yi nu nekk wala bis yi mooy ci biir téléphone yi whatsapp yi biir imo yi facebook youtube ay nit yoo xam ne dañuy jóg di jéem a tëkkale seeni kilifa ak yonent yàlla muhammad wala sax ñuy jéem a yëkkati daraja kilifa yooyu di ko jéem a teg ci kaw yonent bi wala ñu leen di gam-gamle di leen jéem a tollole wala sax ñu yëkkati daraja ñooñu ba wax ne sax am na ci wàll yoo xam ne sax ñoom ñooy dimbali yonent bi maa ngeeg ci benn sama portable waajaa ngi naan kilifaam moo dimbali yonent bi bu mu gis yàlla nee na benn yoon la ko gis te dootu ko gisaat ndax yàlla fa mu nekkoon moom jële na ko fi yóbbu na ko feneen ba denc ko bu fa yonent bi demaatoon sax du gis yàlla ak yeneen yu doy waar yoo xam ne loolu mbokk yi ci ab jullit bu am pas-pas bu wér boo xam ne gëm na ne yàlla mooy boroomam muhammad la yàlla yónni ci moom loolu ab jullit du ko wax waxuma la ak mu koy dëggal waxuma la ak mu koy gëm waxuma la ak nag mu koy def ay waxtaanukaay moo tax nu wax ne in kuntum la taalamuuna man muhammad in kuntum la taalamuuna man huwa muhammadu rasulullah fasmau fasmau maada yaqulu muhammadun muhaddisan binicmati illahi alayh ismau ya dunya wasmat udnayki in lam tasmai mbokk yi bu fekkee xamul kan mooy muhammad nanu déglu nanu déglu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nuy wax moom yonent bi dinu nettali xéewal yi ko yàlla defal wa amma bi nicmati rabbika fa haddis yow muhammad comme gaañi dañ laa réere nga lawaay waxal ak ñoom pour ñu xam yow xéewal yi la yàlla defal yéen waa àdduna déglu leen ku lànk bañ a déglu yàlla na say nopp tëx ismaiya dunya man muhammad haza mbokki jullit yi nun ni ñu yàlla defal xéewal tey ñu julli si nanu déglu kan mooy muhammad mu ñuy nettali moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينما أنا بين النائم واليقظان والأنبياء إذا نامت أعينهم لا تنام قلوبهم يننت بنينا بين بس dama nekk ci diggante gëmmentu ak yeewu yeewuma waaye nelawuma maa ngi ci diggante nelaw ak yeewu yonent yi alayhimu salaam su seeni bët gëmmee seeni xol du nelaw seeni bët bu nelawee seeni xol du nelaw ñoom yonent yi isma'u haadihi ru'ya allati ra'aha rasuluna alkarim mbokk yi ci yàlla nanu déglu gént gi yonent bi gis xam ngeen ne gént yonent yi waxyu la bu jóge asamaan wa ru'ya al anbiya wahyun di ngeen fàttaliku keroog ba ibrahima tëddee gént mu ne inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara gént yonent yi waxyu la bu jóge asamaan ndax yàlla mooy wax ak ñoom sallallahu alayhi wa sallam nee na gént gi ma gént nga xam ne sunu borom moo ma ko wan gént yonent dëgg la rawatina nag bu fekkee muhammad mu ne baynama ana kadalik is ataani jibril wa mikail fil manaam maa ngi diggante boobu rek jibril daat may dikkal ak mikail ci nelaw yooyu fa qaala jibril li mikail zin muhammadan jibril daan ne gees mikail daan ne ko peeseel ma sawaaji peeseel ma muhammad mu ne fa wazanani mikail bi asara rijal fa rajahtu bihim mikail jël na fukki nit teg ci balance daa di jël yonent bi teg ci balance yonent bi nee na farajaxtu bihim ma daaneel leen mu ne zinhu bi mia peese ko téeméeri nit mu ne fa wasani nii bi mia rajulin farajaxtu bihim mu peese maag téeméeri nit ma daaneel leen fa qaala jibril zinhu bi alf mikail peese ko ak junni mu ne fa wasanani bi al fa rajahtu bihim mu jël junni peese mu ne ma daaneel leen jibril daa di gestu mikail ne ko yow mikaayil maa ngi lay yëgal wallazi baasahu bilhaq law wazannaahu bi ahli samawati wal ardi jamian la rajaha bihim muhammad maa ngi lay yëgal ne boo jëloon waa asamaan yëpp teg ci balance ak waa suuf yëpp nga teg ci balance ñoom ñëpp ñu bokk nekk benn nga jël sayduna muhammad teg ci beneen balance bi mu ne dana leen daaneel kooku kon naka lañ koy tëkkalee ak ay mbindeef naka lañ koy tëkkalee ak ay nit naka la ñuy jéem a wàccee kooku ak darajaam kooku nga xam ne yàlla moo ko yéegal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu hada huwa muhammad hada huwa muhammad ya dunya hada huwa muhammad ya sénégal hada huwa muhammad ya ahla turuq yéen waa sénégal kii mooy muhammad yéen waa aduna kii mooy muhammad yéen nit ñi nekk ci yenn ci tarixa yi di jéem a wàcce muhammad kii mooy sayduna muhammad muhammadun huwa nabiyi l umiyi alladi allama almutaallimin mooy ki jàngul te moo fi raw baatu umi yi kuñ ko wax ku dul sayduna muhammad rek xas la ci yow amma sayduna muhammad tagg la ci moom jàngul te moo jàngal jàngalekat yi walyatim alladi baasa al amal fi qulubi l yaisin mooy jirim bi nga xam ne dafa juddu fekkewul baayam keroog ba mu juddoo moom Seydina Muhammad maama Abu Talib moo ko fab wër ak moom Kaaba gi juróom-ñaari jéego juróom-ñaari tuur wër ko juróom-ñaar daan ne sammaytuhu Muhammada tuddee naa ko Muhammad ñu ne ko lan moo tax nga tuddee ko Muhammad mu ne li yakuna mahmudan bayna samaa'i wal ard pour mu nekk ku ñu gërëm diggante asamaan ak suuf. gaa yi gërëm nañ ko wala gërëmuñ ko muhammad alfaqir alladi qaada safinata albasariya fi muxiiti haadi alxayaat ila saati illahi rabbil alamin mooy ki ñàkk ki nga xam ne moo jool moo joow gaal gi nga xam ne mbindeef yee ci nekk teeral ko ci tefesu borom bi tabaraka wa taala moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne ba ma yàlla di yónni dafa fekk àdduna lëndëm nit ñi nekk ci réer ba yàlla diñ ko nettali ci Qur'an wa kuntum ala safa hufratin min an nar fa anqazakum minha mu ne bi ma ñëwee dafa mel ne taw bu taw su taw tawee ci digg àll bi ba taw bi sebet su nit jëlee ay matt dem ci digg àll bi daal di koy taal ndax seddaay bu métti bëgg a jaaru gunóor yeeg njanaaw yi dañuy ñëw di song safara si di bëgg lumière waaye comme amuñu xel suñu ñëwee dañuy dugg ci biir daal di lakk dee yonent bi nee na bi ma yàlla di yónni noonu la àdduna bi meloon nit ñëpp riir jëm safara mu ne maa ñëw tekki sama kaala ci sama bopp teg ko ci sama ndigg ku tëb bëgg a dugg safara ma daal lay kapre teg ci suuf noonu la doomu aadama yi noonu laa leen sauvé mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne mooy ñi lenn ci doomu aadama yi nga xam ne dañoo bëgg daraja bëgg ku leen dégg wala réer wala ñàkk a jàng jóg di gam-gamle ak di nattale lenn ci seeni kilifa ak yenn orientaliste yi nekk seen ginnaaw nga xam ne ay bindkat lañu nga xam ne tey ci àddina bi dañuy jóg di nataal ak di bind ak sax lenn ci ay africain ñoo ñëpp dañuy jóg ba dégg ngeen ne bu mujj bi film Mickey lañ def la séjour buñ koy dugal ci internet bi pour sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam waaye ixwatal iman naqulu li haula جميعا ولو حول الناس nit ñëpp bu ñu soppeeku woon ñoom ñëpp jamian ila alkannasin li yusiru turaba ala sama fa fa yasiruuna turaaba ala anfusihim wa tabqa sama sama daahikatu sinni baasimatul muhya mbokk julit yi ñu weex ñi ak ñu ñuul ñi nit ya ginne yi bu ñu àndoon ñoom ñëpp nekk ay balekat góor ak jigéen mag ak ndaw su ñëpp àndoon nekk ay balekat ne dañuy bale suuf si sotti ko kaw asamaan suuf soosu fan lay mujj a ñëw ci seen kaw lay delluwaat sallallahu alayhi wa sallam kenn mënul ne da ngay bind ci moom wala nga wax lu dul sa bopp ngay alak sa bopp ngay wàññi amma yonent ni yàlla aare asamaan bi ba max munu ko max ngelaw munu ko daaneel jant bi munu ci dara noonu la yàlla tabaraka wa taala aare sayduna muhammad wa hada hassan ibnu sabit ataahu kufaru quraish mablagan min almal wa zalika qabla islamihi liyahju nabi sallallahu alayhi wa sallam am na benn woykat bu tudd Hassan jamono ba mu nekkee yéeféer yéeféer yi màkk dañ ko woo jox ko xaalis bu bari ne ko dañoo bëgg nga attaqueel ñu Muhammad nga dóoral ñu ko ay wax wala ay way yoo xam ne bu dalee ci kawam bomb lay doon Hassan daa di ñëw taxaw ci benn jànj bu kawe di xaar yonent bi romb ko génn di xaar yonent bi génn rek mu xool ci moom benn melokaan yére yi mu sol wala ni muy doxee wala ni mu kaalawoo wala ni muy waxee wala benn melokaan bu ñaaw rek na ko ci xool rek xam ne li dafa ñaaw rek mu daal di jaarale foofu li mu ko bëgg a wax Hassan nee na waaye li ma jaaxal mu ne bi Seydina Muhammad ne tëll sama bët yi ne jàkk ci bëtam yi mu ne samay bët dañoo rus samay bët dañoo rus sama yaram yi dee sama tànk yi lafañ mu ne ma bugg a wax ma dotom nan la Hassan def dafa delluwaat ci waa Màkk mu ne leen hada maalukum laysa lii fihi haaja gaa yi seen alal a ngi nii soxlaatuma ko gaa yi na ko lu xew maa li hada arsalnaaka yónni wuñ la woon ngir lii yow dañ laa wóolu woon lu tax nga dem delloo siwaat alal ji mu ne leen wallahi sama bët ba mu ne tekk ci bëtum yi mu ne dafa mel ne dañ maa branché weer yi mënatuma koo xool mënatumaa gis benn manqué manqué ci moom kon maa ngi leen di seedeel ne waa ji seedeel sama boroom annahu rasulullah seedeel naa leen yéen ñii seedeel sama boroom ne waa ji ngeen bëgg ne naa ko xas kii dëgg dëgg dëgg yàllaa ko yónni ixwatal iman la yaalam aljami na ñëpp xam na ñëpp yëg man huwa sayduna muhammad li yaalam aljami anna muhammadan hada buisa liltawxid alaqaid la liltafriq alqawaid na ñëpp yëg ne muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni pour mu kennal kàddu yàlla li tawxid al aqaid pour pas-pas yépp nañu nekk benn lii problème tey li tax pas-pas yi mënuñu nekk benn ku nekk am nga loo fas jullit yi nekk ay téeméeri téeméeri façon ci àdduna nekk ay jullit ba pare bokkuñu pas-pas lu ko waral mooy ñàkk a topp ci ginnaaw yonent bi waaye yàlla li mu ko yónnee mooy li tawhid al aqaid laa li tafriq al qawaid yàlla yónni wu ko pour kenn yu wuute déedéet daf ko yónni ndax pas-pas bi nekk benn li yaalam al jami anna muhammadun hada buisa bilshariati hiya lilshuubi albidaiya kalwalidi rahim na ñëpp yëg mbokki julit yi ne muhammad mi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni jox ko sariya boo xam ne sariya bi li mu ëmb moo gën yërmande ji mu ëmbal nit ñi moo gën a jege li ñu sunuy baay ëmbal sharia islam bi yàlla jox muhammad yërmande gi ci nekk sunuy ndeeg sunuy baay amuñu lu toll noonu moo tax yàlla mu ne ko wa ma arsalnaak illa rahmatan lil alamin dama laa yónni pour ma nga nekk gaalu sauvetage buy sauver nit ñi pour dugal leen aljanna li yaalama aljami ne ñëpp yëg xam li yaalama ahlul ard waa suuf na ñu yëg ne anna muhammadan hada buisa bishariati buisa bishar'in كالشمس وضحاها وبالسنة كالقمر إذا تلاها وبالقرآن كالنهار إذا جلاها فمن أعرض عنهما آس في ظلمة الليل إذا يغشاها يلا يوني محمد صلى الله عليه وسلم تي شريعة بو خامني دا لير با ملني بيتك بشرع كالشمس وضحاها su jant fenkee ni muy leerale aduna li yàlla yónni muhammad noonu la leere nañ dara lëndëmu ci lépp ci ay texte la tegu lépp ci waxu yàlla la tegu dafa leer nañ kon su jullit réeree rek moo nar a alku su jullit joxoñee yonent bi wax ci moom safaan rek jullit boobu moo xamul jullit boobu moo réer waaye yàlla li mu yónnee muhammad sunna bi mu ko jox kal qamari isa talaha mu ngi mel ne weer wu génn fukki fan ak juróom ne dang ci digg asamaan bi dëkk bi yëpp lay leeral sunna bi yàlla jox muhammad noonu la leeree wa bil quran kannahaari isa jallaha yàlla alquran ji mu jox yonent yàlla muhammad mu ngi mel ne bëccëg bëccëg bu leer nañ nga xam ne dara lëndëmul lépp leer sunu boroom alquran bu mel noonu la jox yonent yàlla muhammad soo demee ci alquran lépp nga fay fekk moo tax yàlla mu ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen li yàlla wàcc ci yéen mbokki julit yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngoog waqafa nabi hatta mbindee fi nga xam ne duñu ay nit xamoon nañ kan mooy muhammad yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon na xutba ci jumaam première min baram fi mu doon taxaw su taxawee loxo ndeyjoor bi ci ëkku tàndarma la ko doon teg ëkku tàndarma ëkk mooy garab boo xam ne dañoo dagg ci kaw bàyyi bant bi mu taxaw ci suuf kenn buddiwu ko garab googu dootul sax ëkk lay tudd su daan xutba ci garabu tàndarma boobu lay teg loxoom sallallahu alayhi wa sallam ñu toxal minbar bi keroog ba yàlla ne jublu leen léegi bay masjidul haram ñu changé qibla bi ñu bàyyi fa ëkk gi jour àjjuma jot yeneen yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam taxaw ca beneen côté ba di xutba ñu dégg ëkk gi di jooy mel ne di jigéen ju ñàkk doomam parce que tey yonent bi tegul loxoom ci moom ëkk gi di jooy yonent alayhi salaatu wasalaam taxaw na ci kaw jabalu uhud moom yonent bi ànd ak abubakar ak usmaan ak umar radiyallahu anhum falamma waqafu ala uhudin ihtazza al jabal bi yonent bi taxawee ci kaw montagne bi montagne bi dafa gërëng-gërëng yi yuuxu daal di yëngu fa qaala alhabibu mustapha usbut ya uhud yonent bi ne xeer bi regleel dalal regleel xeer bi ne tek mu ne ko yow xeer bi usbut ya uhud fa inna fawqaka nabiyan wa siddiqan wa sahidayni xeer bi ne tek taxaw kon xeer bi xam na kan mooy muhammad yow xeer bi leer teg xeer bi dal mu ne ko xanaa xamoo ne ab yonent moo taxaw sa kaw xanaa xamoo ne ab siddiq moo taxaw sa kaw xanaa xamoo ne yow xeer bi ñaar ñuy shahid ñoo nekk sa kaw moo tax keroog la ñu xamoon ne omar ak usmaan dañ leen di faat fa allahuma salli wa sallim wa barik alayka ya rasulallah أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان هبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين جبريل فقال لا يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك أتدري بما رفع الله ذكرك فقال الحبيب الله أعلم يا جبريل فقال له كبير أمناء وهي السماء إن الله تعالى يقول لك رفعت ذكرك يا حبيبي بأن اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمك صلى الله عليه وسلم بقي bis jibril dafa jóge kaw asamaan wàcc ci kaw yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko borom jàmm jaa ngi lay yónnee jàmm borom jàmm ji mi ngi lay yónnee jàmm yow yonent borom bi nee na la xam nga est-ce que yëg nga ne yàlla dafa yëkkati sa daraja ba ci kaw yàlla dafa yëkkati sa tur ndax yëg nga loolu ndax xam nga ne yàlla daf laa yëkkati dafa yëkkati sa sa tur dafa yëkkati sa jëmm qaala alhabib allahu aalam ya jibril yonent bi ne ko loolu yàlla rek a ko xam jibril ne ko jibril mooy ki yàlla wóolu digganteem ak yonent yi moom moo yor wahyu sama jibril daan ne yonent bi sunu boroom subhanahu wa taala nee na yëkkati na sa tur ba saa yu ñu tuddee turam moom yàlla dañuy tudd sa tur mbokk yi bu ñu waxee laa ilaha illallah turu kan lañ ciy teg muhammad rasulullah xool leen addina bi ñaata jàkkaa fi nekk loolu day sori tey buñ la ne woon Sénégal gi nga juddoo dëkk fi yow moomu di jéem a tolla la yonent bi ak ñeneen ñu ne jàkka yi nekk ci dëkk boobu waxtu yi bu julli bu jotee suñuy nodd noddukat yooyu bilaal yooyu suñu waxee ashhadu an la ilaha illa turukan lañ ciy teg muhammad kon yow moomu doon wax loolu daan tëkkale yonent bi keneen soo xooloon loolu sax xam ne yow yaa war a xoolaat sa bopp yaa war a defaraat sa pas-pas yàlla yëkkati turu yonent bi wa rafa'na laka zikraka yàlla nee na maa yëkkati sa tur ba àdduna bi fépp su julli jotee partout da ngay dégg turu yonent bi ñu koy wax ci àddina bi muy naaw ci jaww ji waaye yemul foof wa fil azan xamsa marat bés bu nekk jàkka ju nekk juróomi yoon wa fil iqam xamsa marat wa fi tashahud wa fi salaa wa indama nanaamu ala firasi almawt nusallimu ruux ila allah naqulu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mbokk yi suñuy julli suñu julli du wér lu dul ñu wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah suñuy taaya bu ñu nekkee ci lalu dee di waaj a génn àdduna suñu alaxira du mun a baax lu dul ñu wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah bal ku mujjee wax loolu aljanna mooy sa kër man kaana axiru kalaamihi la ilaha illallah yan me daxal aljanna kon mbokki julit yi yonent baa ngoog haa huwa nabi allazi kataba allahu bayna katafayh bi yadi alqudra ya habibi tawajjah haysuma si fa innaka mansur sallallahu alayhi wa sallam mooy ki yàlla bind diggante ñaari mbaggam yi mbagg ndeyjoor ak mbagg càmmoñ dañ faa bind yow yonent bi jëmal fu la neex fooy dem yaay gañe fa innaka mansuur moo tax mu bokk ci turam yi muhammadul mansuur fu mu dem mooy gañe demal fu la neex jublul fu la neex koo song yaa koy gañe fa innaka mansuur loolu dañ kaa bind ci diggante ñaari mbagg yonent yi nabiyun aataahu llahu sajaata muusa wa safaqata haarun wa iqdaami daawud wa azamatu suleyman wa basaatatu yahya wa rahmatu isa wa sabru ayub yonent bi mooy ki nga xam ne sunu borom jalla jalaalu daf kaa jox njàmbaaru Muusa xam ngeen ne Muusa jàmbaar la woon fekk na teen boo xam ne fukki ponkal ñoo koy ubbi ñu teg ci benn xeer mu ñëw puus ko xeer bi daal di daanu fekk na ñaari nit di xeex mu leen di atte mu bumax kenn ki mu daanu dee njàmbaar googu nekkoon ci Muusa yàlla ci yonent bi la ko def sujaata Musa wa safaqata Haarun ñeewant gi nekkoon ci Haarun yàlla daf ko def ci Muhammad wa iqdaami Daawud Daawud ni mu doon defee sacrifice ngeen jàng ci alquran yàlla mu ne wa qatala Daawuda Jaalut sacrifice boobu yàlla daf ko def ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa azamata suleyman suleyman ni mu màgge woon ba jiite jinne yeeg nit ñi nga xam ne bu daan dem escorte jinne yeeg nit ñoo koy wër loolu yàlla daf ko def ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa basatatu yahya wa rahmata isa wa sabru ayub nabiyun aqsama allahu maulana tabaraka wa taala yonent bi mooy ki nga xam ne yàlla dafa giñ ci dundam fa qaala wa izzati wa jalaali ya muhammad law salaku ilaya kullu tariqin wastaftahu alaya kullu baab ma fatahtu lahum baab hatta yaatu min xalfik maa ngi giñ ci sama màggaay man yàlla nit ñi bu ñu jaaroon bépp porte yoon bu nekk ñu jaar mbedd mu nekk ñu jaar bunt bu nekk ñu taxaw wallahi maa ngi giñ ci sama màggaay yow muhammad ku nekkul sa ginnaaw taxawul ci sa bunt du dugg aljanna loolu leer na yaa ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illah wa rasul bu leen jiitu yàlla ak yonent nekk leen rek ci ginnaawam bépp bunt bu doomu aadama jaar ëllëg lu dul mu nekk ci ginnaaw yonent bi doo texe ëllëg yonent bi gis na benn sahaaba bu yor lenn ci ay feuilles tawraat di ko jàng ci biir jàkka ji yonent bi ne ko loo yor mu ne ko tawraat lay liir yonent bi keroog kanam gi dafa soppeeku mu mer bi mu taxawee ci minbar lan la wax maa ngi giñ ci màggaayu yàlla Muusa alayhi salaam mi nga xam ne moom la yàlla joxoon tawraat tey bu dekki woon ci kaw suuf adduna bi du yaatu ci moom lu dul mu nekk sama ginnaaw Muusa la yàlla wax de moo waxaloon ak yàlla wa kallama allahu Muusa takliman moo waxoon ak yàlla loolu ndax waa Sénégal am nañ daraja boobu kenn yàlla wax ak moom fii waaye moom boo waxoon loolu léegi nga dégg ku ne waaw waaw diw yàlla wax na ak moom ndax nit ñi ñoom fii dañoo ñeme yàlla dañuy wax bi duuni dalil wala nga gis ñu dessiné jibril ci mbedd yi mu yenu fi ay jàkk ñii ne masjidul baytil maamour mu ngi fële ci ginnaaw géej ku nekk di wax lu la neex ku nekk pour lan pour am daraja joo tolloog sayyidina muhammad kooku dem na benn yoo dafa ñëw tag ci garabu guy yoo daa tag ci garabu guy yendu fa ba ngoon ba timis di waaj a jot yoo bi di waaj a départ di tëddi daan ne guy gi taxawal bu baax jàppandul say reen ci suuf maa ngi waaj a naaw balaa ngay daanu guy gi ne ko bi nga fi tag yëguma ko bi nga fi tag ci suba yëguma ko noonu la muhammad mel ak ñii noonu la leen muhammad rawee ba àddina di jeex ba ñuy sàngoo suuf ku mel ne muhammad dootu fi dox ñi ñëwoon fekk ñu fi ku mel ne moom ñim fi bàyyi ku mel ne moom dootu leen fi fekk sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom ne jalla jalaaluhu aljanna haramun ala kulli man yuminu bi muhammad aljanna araam yàlla da kaa araamal ci képp ku gëmul muhammad képp kuy tuutil muhammad yàlla araamal na aljanna ci yow aba hurayra nee na raaytu ajmala mu ne maa raaytu ajmal min rasul sallallahu alayhi wa sallam ka annama tajri samsu fi wajhi musuma gis ku rafet ba mel ne yonent mu ne yonent bi dafa mel ne jant bi mooy fenk ci kanamam ndax leer moo tax keroog ba ko xastaan xoolee ay bëtam daal di rus sallallahu alayhi wa sallam mu ne ka annama sams tajri ala wajhi mbokk yi yàlla subhanahu wa taala bi muy nattale diggante muhammad ak jant bi sunu boroom dafa ne jant bi wa jaal na samsa siraajan wahaaja daal dafa na jant bi lumière bi mu am day lakkaati amma bi muy wax muhammad saa sallam dafa ne ko siraajan muniira kan du benn hatta jant bi xam na kan mooy muhammad ñun ñu nekk ay jullit ci réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman ba tey ñu réere sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam waxuma sax waaye ñu koy tëkkale ak ay mbindeef bal sax di di tuutil darajaam naan gis nga yonent bi keroog ba mu demee Makka na di jéem a wàññi darajaam bal sax naan téere bi yàlla wàcce ci moom ni silaabeer ni alquran gënee silaabeer ñun téere yi ñuy jàng noonu la gënee alquran waaw waaw loolu waajee ko wax ni alquran gënee silaabeer ñun téere yi ñu yor noonu la gënee alquran loolu jullit dina ko wax waaye Sénégal lañ nekk nag dara bum leen bett ixwat al iman sallallahu alayhi wa sallam sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam keroog ba mu génne àdduna seydina ali radiallahu anhu nekk dama dugg fekk yonent bi mu ngi tëdd mu ngi génn àdduna mu ne ñu ne dañ koy sang mu ne ñu ne dañuy simmi yére yi kenn mënu ko ndax lumière bi kenn mënu ko simmi mu ne nan lañ mujj def mu ne ci kaw yére yooyu lañ ko sangee ci kaw yére yi lañ ko sangee sallallahu alayhi wa sallam ibnu mas'ud nee na ibnu mas'ud mooy nettali mu ne yow yonent sallallahu alayhi wa sallam waaw yow boo faatoo naka lañ lay sange yow yonent boo faatoo naka lañ lay sange nu ñuy def kan moo lay taxaw ñan ñooy toppatoo sa mbir sallallahu alayhi wa sallam qaala alhabib yonent bi ne ida gassaltumuni wa kafantumuni fad'uni ala safiri alqabri saa wahdi fa awalu man yusalli alayya allahu rabbul alamin sénégal am nañ ko yàlla di julle inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala man yusalluna ala man ala nabi kon nag yaa ayuha allazina amanu sallu waaw loolu rek doyoon na yàlla ak malaaka yi dañuy julli ci yonent bi kon yéen ñi gëm julli leen ci moom yow yonent boo génnee àdduna naka lañ lay jullee mu ne bu ngeen ma sangee ba sang ma allahu akbar bu ngeen ma sangee ba sang ma na ngeen ma teg ci sama buntu bàmmeel waxtu waxtu saa fa awalu man yusalli alayya allahu rabbul alamin ki may njëkk a jullee mooy sama borom yàlla su ma sama borom jullee ba pare jibril moo ciy tegu su ma jibril jullee ba pare mikail moo ciy tegu mikail asrafil moo ciy tegu asrafil malakul mawt su malaaka yi paasee nag udxulu alayya jamaa wa furada wa sallu alayya na ngeen dugg si par mbooloo na ngeen dugg si par kenn kenn ngeen jullee ma sallallahu alayhi wa sallam allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ittibaa wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba allahumma ya musabbitu alqulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة yàlla nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nañu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu ñu xam ne lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yàlla nañu yàlla woon neen mu wërsëgal ñu ñu xam ne lii mooy neen yàlla wërsëgal ñu sori ko qumu ila salatikum yarhamukum allah